mbokk yi salaamaaleykum amaat mbégte ak contentement ci fii nga xamante ni que ni mooy Xewa TV nee naa la saa su nekk ni lay demee tey nag dañoo invité jeune choisir ko parmi les jeunes au Sénégal muy liggéey li nga xamante ni du ma ni sax muy liggéey dama muy yëngu ci li nga xam ne mooy politique te ku ni politique xam ne actualité la xew-xew nag daal di tànn kenn ci ñoom ndaw yi daal di bokk foo xamante ni que ni macha allah tabaarakallah <laughs> euh, kenn dootu leen présenté. Hmm. ma bàyyi la nga présenté wu. Ah salaamaaleykum d' maa ngi nuyu. Ndeye Fatou la présentatrice. ak di mhm. nuyu aussi sénégalais pour nous tra nous à travers Xewal TV. voilà xam naa suñu présentation mon mhm. euh, du bari parce que tamit li li nga xamante ni moom la doon la wax. Mhm. Birane mhm. militant et responsable de alliance pour la république. Euh, Nek aussi chargé de mission. de madame la présidente du conseil économique social et environnemental de madame Aminata Touré. Mhm. Euh, dëkk Thiénaba bokk ci ndaw yi nga xam le président de la république. voilà loolu moo nekkoon présentation yi.

ñu ngi ko créé li mu différencié woo ak yeneen parti yi. mooy dañu ko créé trois ans yàlla def mu jël pouvoir bi loo xam ne musul am. donc amuñu woon temps di ko structuré. mais organiser wu nañ ba cadre yi amoon ku leen mais fi ñu toll nii. mi ngi commencé am ay jëriñ. waaw c' est c' très normal parce que bépp parti boo gis tamit muy màgg. Mhm. très normalement dañu war am ay. prise de position ci sen bir ñi nga xamni ne duggul woon forcément dinañ jéem a dugg pour mën a nekk station yi mhm. mais yi nga xam tamit ñom ñong fon bu yàgg donc sen position yi dañ ko bëgg a maintenir mel ni ñu fi yagoon <laughs> dañuy commencer di retirer wu waaw waaw non non non gis na ni retirer wu amago ci suñu parti mhm. wala boy xol ku genn rek presque da nga def lo xamni da nga wara a mhm. ndax bu ñuy wax parti discipline de parti lañuy wax bu ñuy wax parti aussi tamit loyauté mo tax ñuy wax bu ñuy wax parti aussi tamit confiance mo tax ñuy wax parti ku ci dem ba yoy yëpp nga xamante ni moom lañ la xamee nekkatul ci yow sentiratoo sa bopp mhm. je pense que nga génn na ci biti moom moo gën ah, quoi nga bokk ci membre fondateur yi jékki-jékki commencé retiré wu kon am na lu yëngal mbir mi waaw li yëngal mbir mi mooy comme ni ma la wax léegi rek euh, bu ñu demee ba yow sa amatuloo confiance ñi nga xam ñoom ñoo la jiite mhm. wala fa nga nekkoon nekkatoo fa ba tax ngay wax loo xamante ba nga nekkee ci position boobu daawoo ko wax mhm. nga génne sa bopp mhm. ci say jëf ci say acte moo tax yow vraiment position ba nga amoon amatoo ko moo tax nga nekk ci biti voilà mhm. nga loolu nga gisee mbir mi daal te en plus mooy li am loolooy li am mooy li nekk mooy li nekk mooy li nekk mu doon kàddu yu am solo muy jeune politicien nëbbuma ko nag mhm. waaye daa am loo xamante ni mbir mi dafa jeexi jaaxa position Aminata Touré madame Aminata Touré waaw madame Amine Touré. Euh, de passage ma koy nuyu mu nekk. kilifa ci réew kilifa ci réew mi. Mhm. jiite ay station yu bëree bëri. ba tey ji yàlla def mu nek ci mën ni troisième personnalité de l'État. état. Mhm. ndax institution yi gëna a mag. Mhm. muy conseil économique social et environnemental moom moo ko euh, ci militantisme ci bir APR. yàlla def na dafa bokk ci parti bi président jël ko wóolu ko def ko mu nekk directrice de campagne. mu jotee ko en 2012 yàlla may ko ci ndam ba mu dem ba ba ñu gagné élection yooyu. président jël li nga xam ni moom moo gën a compliqué gën a difficile. ci gouvernement muy ministère de la justice ñu jox ko ko. mu dajeeg li nga xamanteni mom moy euh bonne gouvernance mhm. ñu wuutu ay nit yo xamni nañ doon doxale mais bonne gouvernance actuellement ni mi ngi am Sénégal. waaw bien sûr ci ci laa jëm ci bonne gouvernance mi ngi am Sénégal. Mhm. ñi nga xam ñom ñom lañuy wootu wuutu. ni ñu doon doxale bokul ak li nga xamanteni mo nekkon suñu programme. Mhm. lu mel track des biens mal acquis. ay enrichissement illicite. mu jël dossier yoyu jël ko bopam def ci liggéey bu rafet. ba ñi nga xamante ni jël nañu alalu askan wi si nañu ko ñu ngi ciy jàpp ñu jàpp leen ci. no bul dugg foofu parce que am nañu jël <laughs> alalu askan wi dëgg ci seen tànk. waaw waaw waaw mais mais li nga xamante ni quand moom moo fi nekk di euh, ay organe de contrôle. Mm-hmm. lu ci mel ni CREI yi. Mm-hmm. ñu ngi ci jàpp jàpp na leen. Mm-hmm. ñoo ñooñu vraiment madame Aminata Touré def ci liggéey bu rafet. Euh, ñi ci mën a jàpp jàpp na leen. non ñi nga xamante ni def nañu. Mm-hmm. te ñuy def ci ñoom ay rapport ñoo ñu jàpp nañ leen. Mm-hmm. lu ci mel ni Karim wadd ñu mm-hmm. ci mel ni ay Aïda Ndiongue ñooñu ñëpp. après Karim wadd dañoo gis la solution bi ñu teg dañ ne euh, kii di Karim Wade. waaw da nga koo seetlu ba mu set kenn toppeetu ko dara. waaw non xam nga loolu aussi tamit ay wax la rek xam nga ñun li nga xamante ni. ñoom loolu lañ doon wax. Mhm. dañ ne woon Karim Wade kenn duko japp jàpp. Mhm. ñu jël ko japp ko. japp ngeen ko. waaw ñu def ay enquête jël ko japp ko. Mhm. ñu ni kenn duko tej ñu jël ko tej ko. mais pourtant Aliou Sall def ngeen ci mom ay enquête. waaw non xam nga Aliou Sall kaaw bobu ak ka bi dafa bokkul. Aliou Sall yoru ben station ci ci ci rew mi bo xamanteni vraiment war nañ ko ci mëna a ay nit ñoo jóge fële rek am ci loolu animé. muy animosité am aussi tamit ben rivalité bu am seen diggante ak mom bo lu ko ex journaliste yo xam c'est des journalistes yo xam duñu référence référence. ñooñu ñoo jël xey Mhm. mais vous un Karim Wade euh, de contrôle. Mhm. fi jëm terminer. une mhm. enquête ci mhm. une enquête un rapport koy Vous ko fekk dañu ko ñu jël ko rapport. ko. ñu ni président de la république mi nga prérogative gracier. Karim Wade fait partie des milliers de sénégalais qui ont qui ont été graciés par le président de la république ñu jël ko gracier compte tenu de ses relations avec son papa. ak aussi tamit fi nga ah, xam pense que ni mhm. gracier ci noonu lañ ko génnee noonu mais kenn ñëwul setal ko bam sét wécc ni ki dal yorul dara ci alalu réew mi. non sétal bam sét wécc wecc amu ci. Mhm. ko jël dañ ñëw buñ ko tej ñu japp ko tej ko def nañ ci ay rapport ñu ko gracier ñu jàpp ko gracier non <laughs> non opposition bu am doole moo tax non non opposition bu am doole amu ci que tamit dafa bokk ci benn parti bul fàtte mhm. PDS la bokk mhm. te parti ba ba mu cay bokk di am doole bu ñu amoon doole du leen fi jëlee mhm. te fay nekk ba leen fi jëlee am na lu fa nekkoon PDS boobu Pape Diop mi nga ca woon ñu amoon doole PDS boobu Mamadou Diagne Fada ma nga euh, ca woon bu ñu demee ba ñu ñëpp bokkoon ca parti ba amoon doole jóge fa mu des mel ni lëmum Karim Wade bu ñu amoon doole je pense dinañu war a tiital wala aussi tamit du ñu fi jóge. waaw nga defe ni ah. fii ci Sénégal ku nji ku nekk njaag rek du yow yaay njaag. waaw non ku ñin njaaga du yow yaay njaag je pense loolu ay waxu olof la boo xam ne mais li ci am solo mooy na sénégalais yi xam ni ki ñu fal moom président Macky Sall la tudd. waaw mhm. mu fekk ci bi muy jël réew mi mu am ay situation yu mu ko fekkoon li ci ëpp solo la mu waxante woon askan woon la ci ëpp def na ko. Mm, am na lu ci des. question waaw xam nga xam nga daanu dajul fépp. waaw xam nga xam xam nga daanu dajul fépp. Mhm. mais dafa ñëw amoon programme. programme bi mu bi mu jël mu tud yoonu yokuti mu ni benn ndaw ñi mhm. ni ni bi mhm. te ku ci très ñett yoy yépp def ci lo xamanteni vraiment ñepp tégal nañ seen mhm. bu emploi des jeunes ak financement. non non non qu'on la vérité amna lo xamanteni très que tamit wax. fi ma tollu ak fi rew mi tollu ni duma ko emploi deug la. mi ngi avancé y a des sommeurs yo ils sont diplômés. waaw waaw gis nga tamit dina la ci revenir bu ñuy wax aussi tamit emploi du ñëpp dañuy toog ci ay bureau mhm. waaw président créé na emploi ci côté agriculture bi. Mhm. créé na emploi ci côté euh, secteur formel bi ak informel bi. Mhm. am na ci ñoo xam ne tamit financé nañ le financement DER yi bari nañ. ay 3FPT yooyu yëpp c'est des institutions yoo xam dañ lay jàppale ci formation boo paree aussi tamit ñu ñu continuer jàppale la ba nga am ci loo jàpp. donc kon bu ñuy wax ci côté formation ak côté emploi président jàpp na ci. mu des côté jigéen ñi. Euh, je pense aussi financement des femmes. Mhm. pour l'émergence, mais côté monde rural le mhm. monde rural je pense que c'est un problème C'est la mhm. problème courant. mais ndox mais plus de 300 forages ci m'as man mi di wax ak je suis dans le monde rural. amna fo xamantene xamante ne may ma am xam dama fa doon dem en 2012. Mhm. am fo xam dama fa doon dem en 2009. Mhm. mais dama don gis ñuy jukki mais fepp fuma dem dama gis ay robinet yu xelli. plus de 300 forages. fo xamante comme par exemple lii ñu am ni tay mhm. di tok di def émission te courant coupé wul. au temps de Abdoulaye wad ak ñi fi nekkoon lolu amul woon donc ñu jëlee électrification relative ci 30 En cent. Mhm. ba 60 président barki dembu dégg ngeen ko mais feeñ na ci parce que. Mhm. prix de l'électricité dafa yokk. wa prix de l'électricité dafa dafa yokk bu féké dafa yokk aussi tam fofu tam il faut ngeen déglu ñu dañuy xawal ci ñan la yokk ak ci kan la yokk dafa am les consommateurs de premier degré. Mhm. et les consommateurs de second degré. les consommateurs de premier degré mooy ñi nga xam dañuy yor ventilo. non dañuy yor climatiseur. yor ay confré ay ay ay frigo. yor lepp lo xamanteni courant lay laaj. mais bi fi góor gi nekkee mm-hmm. loolu lépp da daan fonctionner premier degré ak deuxième degré mais terewul. mais mais yëf yi dafa quoi. non mais yëf yi dafa stabloon euh, je pense stabilité mom léegi lañ ko mëna a wax. Mm-hmm. Parce que si vous voulez atteindre 90%, 99%, ou 100%, il faut que nous devions prendre le courant mhm. pour dire que vous avez des Mais si vous voulez que nous devons prendre le courant, vous devons prendre le courant. Vous devions prendre le courant. nous devions prendre le courant. Vraiment, yokk prix de prix l'électricité bi ci ñenn ñi nga xamante ne am nañu Macky Sall da laa yónni mais duma la bàyyee noonu ba tax na hmm. tey nag Xewa TV macha allah lépp fii lay leeree tey dañuy jël question hmm. du troisième mandat waaw ñu gis démb hmm. ki nga xamante ni mooy président bu Côte d'Ivoire ah. def lu am solo def lu am solo daal di génn ni waa réewa man kat ah. duma def li nga xamante ni que nii élection troisième mandat yi du ma ci bokk. Mhm. dëkk ba ñëpp daal di kontaan. Mhm. ba ki nga xamante ni mooy président bu France dafa génn di ko félicité. Mhm. ana laka nga gisee loolu bu Macky Sall xëyoon suba def loolu ndax xel yi du gën a dal. waaw xam nga aussi tamit dañuy war a xool société bu nekk ak ay réalité am <laughs> ministère yu nekk ala gouvernement bu nekk ak ay réalité am yaa ngi dégg président Macky Sall dañ ko fal matagul sax presque un an yi mi ngi door a mat

mais ñun sénégal yi waruñu am programme boo xam ne mandat bi euh, cinq ans yëpp ci mandat lañ koy wax. dafa toogoon. wax fi loo xamante ni que ni. mais dafa leer la mais dafa est-ce que est que toogaat na est-ce que toogaat na ni dinaa présenter waat élection yi. di ñëw mais sërëx yi muy defal nit ñi à chaque fois soo nee troisième mandat rek président génn daat lay dàq ku ci mel ni euh, bu ñu jëlee Moustapha Moustapha Touré n'est-ce pas. Mm-hmm. dàq nañ ko. waaw gis nga keneen ak keneen dàq nañ ko. gis nga gis nga bu fekkee da nga ne ci kër. Mm. C'est ci parti politique. Mhm. parti politique bi am ligne de conduite. Mhm. ñi ci parti bi directif la d'accord ko nitu la président groupe parlementaire. Mhm. Euh, chef de cabinet président de la république. amatul yenn affinité la

am position ba mu amoon. amatu ko moo tax mu mandat. ñu daal di koy def li nga xamante ne que mooy dàq. loolu laa la wax suñu parti

Macky la lépp képp kuy doxal bonne gouvernance mën naa ne ci Macky Sall nga ko gisee. Mhm. loolu moo taxoon ñu dàq ko bi mu nekkee euh, assemblée nationale. Mhm. ànd ak waa PDS mu génn gedd seen lépp. Mhm. la taxoon mu génn nag lam doon bañ tey la ko gën a bañ. Ah. te man jàpp naa ne Macky Sall te li ma gëm. muy nga xam ne mooy suñu patron ci alliance pour la république. lépp loo xam ne dafay da koy def. Nous koy def constitution. Mhm. Macky Sall parce qu'il est le premier garant de notre constitution. Donc, kon a <laughs> troisième mandat dans le ko <laughs> du am non débat Sénégal. non parce qu'il y a les élections législatives. merci y a les élections municipales. Euh, municipaux. Mhm. donc pourquoi nous ci élection maire yi ñu pousse naka nga ko waaw non Les élections nek ci dialogue donc mënuñ def ay mënuñ xey xëy def élection mhm. té dialogue bobu ak conclusion yi parégul mhm. donc il faut que tamit euh, ñu may nit ñi temps mhm. parce tamit de 2012 à nos jours affaire yi amul lu ci lëmasu looloo tax non non non ñu daal koy jël pousse non non li ci li dara lëmasuwu ci président liko taxaju moy a jug mooy équité ñëpp tolloo moo mu andi acte 3 andi communalisation intégrale communauté ruraux et ak municipaux au même titre mhm. am statut xam mhm. amul man amul ci mhm. donc lepp pour Sénégal je pense le. Euh, wax dal ci li nga wax nañu dal président confiance bi ñu avons ci mom nako nit ñi Sénégal na jëm kanam ak ay projet bientôt Sénégal dina pays yi pays émergence d'ici 2035 ah ngeen loolu moo war a am. macha allah mu daal di doon kàddu yu am solo moom mu daal di koy def ki nga xam ni jeune la fee nga xamante ni que ni mooy ca Canaba. Mm-hmm. ana lan mooy doon sa kàddu yu mujj. waaw sama kàddu yu mujj du dara lu dul euh, nuyu wat ñi nga xamante ni quand foofu laa dëkk. Mm-hmm. juddoo fa yaakaar fa muy sama lépp muy ba mm-hmm. di leen xamal aussi tamit nii ñoo ngi gën a ànd ak ñoom di nuyu particulièrement la xalif général. di fa nekk mooy Baye Ahmed Tidiane Seck. du suñu maam di sàkku ci moom aussi tamit ñaanam di nuyu l' des responsables yi fa mais di ci jiital le président Abdou Ngui nga xamanteni membre du conseil la di ko ñaanal yalla may ko jamm di nuyu tamit responsable ci

woon fii ci Xéewal TV ba beneen macha allah.